Eh, jërëjëf mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di béggee maa leen ko diggoon léegi ci Liss Ndiago laa jóge fi nga xamante ni moom mooy jàmm gën ci préparation combat bi nga xamante ni moo war a dox ci diggante Liss Ndiago ak Naar Sokaas dégg ngeen Liss Ndiago li mu wax moom laa fekk fi nga xamante ni moom mooy jàmm gën jàmbaar production mbokk yi moom lañ ci àndal le 10 juillet muy jeudi fële ci arène nationale loolu bis bu mag la jàmbaar saa bu wootee day neex Naar Sokaas laa ko fekk hmm? man ak yéen la ci daam seen laa jëm du ma leen may dara. maa ngi lay nuyu. waaw mais mi ngi siyaar bu baax baax Baye Balla ah. la bëggee la kontaanee di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di nuyu àdduna bi yëpp ah di képp koo xamante ne nii mi ngi ñuy seetaan di déglu ci instant bi ñu toll nii instant may déglu nii maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu kilifay diine yi kilifay aada di ñaan suñu Sénégal bi yal na fi yàlla def jàmm bar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ci la lépp xaj. temps dafa mel ni grand contre petit dafa xew duggoon nga sam-sam jël fa benn booy bu dangereux bu ñuy wax baaba Jaxal may ko sens yàlla may la ci ndam tey nga dugg fi nga xamante ni moom mooy euh, jàmm gën jagsaaw tandems jël fa benn xale bu naan Liss njaago xale bu dangereux lu waral loolu. waaw Baye Balla xam nga man moom boo xoolee su may combat yëpp boo xoolee booy rek la ñuy wax ah. man soo xoolee sama sama combat yëpp presque may chance parce que foofu lañ toll ñun ñëpp war nañoo mën a bëree ñi ci kaw war nañoo mën a bëree ñi suuf kaw te garab nag ci kaw lay fekkantee te làmb ku nekk da nga cee xaj comme ni ma koy waxee suñu booy yi foog ñu leen di may chance ndax ñoom it ñu mën a jël seen wërsëg ci biir làmb parce que tamit jot na jot na jot goo xamante ne nii làmb ku ci nekk ku nekk rek da war a fayeeku ndax si meeku ba ni dungu yombul waaw te comme que nekkul loo xamante comme que passe temps temps bu gàtt la temps bi bariwul ah, war nañoo mën a mayante chance ba nga xamante ni ku nekk sa wërsëg di ko jël. yee noonu demee. préparer combat ba combat bi ñu ne suba la combat bi ñu ne la komba bi yàqu na loolu dafa métti ci mbër. waaw metti na trop métti na trop mais nag xam nga suñu borom moom mooy defee nu ko neex te lu jotut jotut mais lu jot lu nekk rek suñu borom def ko mu yomb lool métti na trop nag parce que xam nga làmb moom génne la rek amul dugal génne la xam nga ni mu méttee ci ñun tamit noonu la méttee ci promoteur bi ñu ngi koy ñu ngi koy masaw moom it bu baax a baax a baax di ko bàyyi xel tamit bu baax a baax a baax a baax di wax àdduna yëpp ñu leen xale bu ndaw la demagul fenn le 10 bi dama bëgg àdduna ñëw jàppale ko mu gis si boppam mën a toog ci biir làmb parce que làmb soxla na ko te làmb soxla na ay moromam xam nga làmb ji daf ci war a am réussite totale ci war a yëg boppam ba ñeme làmb ji ba gën a lu ma wax sax ñeme làmb ji gën a ñeme làmb ji xam nga parce que lamb ji léegi boo xoolee promoteur yu bëri ñu ngi promoteur yaa ngi dugg si mais ñu bëri tamit ñu ngi dem xam nga te kenn warul dem dafa war a yokk mais amul dara lu ci war a wàññeeku waaw dañu war a jàppale lamb di ko wax suñu gouvernement bi tamit quoi ñooñ ñëw jàppale lamb nañ jàppale lamb parce que métti na trop combat yu des jours xam nga ñu arrêté combat yi après ñun la football a ngi daw basket ngi daw dañ ko xoolaat bu baax a baax a baax ñu xoolaat ko bu baax a baax Liss Ndiago nee na combat bu mu a jël combat bi moo ci gën a yomb nee na foo mënti taxaw dala fay fekk gis naa ko ne boo duggoon ci versière yi mu fekk la fa. waaw comme li may wax chaque jour rek bay bala takk mag màgget yomb na waaye suba la ngénte li moo jafe de de xaw sax man yaakaar naa combat bu ma am moo ci gën a yomb waaw. mais Liss loolu la wax waaye yow loolu nga ko tontu. déggoo ma xanaa mhm. bu mu mës am bii moo ciy gën a yomb mhm. ni mu yaakaar noonu la yombee ci man man aw ma man sama du ma tëdd nii di xalaat Liss Ndiago déedéet waaw. ma ne ko naaru nee na mooy bëri bëri bi mooy xeex xeex bi mooy daan daan bi mu ma loolu lépp du ci am doo xeex doo bëri. am boo ci bàyyi da naan ko mooy pecc pecc mi. waaw bëri bi duma la duma bi daan la daan bi. loolu laa ko. ok te noonu lay demee nag incha ci kàttanu yàlla mm. waaw. mais xale bi nga bi nga bi nga am am na fit mën na bëri am na mbooloo background bi dafa am doole de. déggoo li ma la wax xanaa <laughs> man booy ku ma ci waajal ku nekk doyoo du caaxaan li ma lay wax nii te le diis nga xam ni booy ku ma ci xaw a waajal waajal bu ndaw doy doo doy déedéet du ma sax yëngal. dama ko laaj kan mooy diriger. ci yéen ñaar mi ne ma naaru moom na taxaw rek xaar ma fu mu taxaw ma jëli. yow di nga nangu Liss Ndiago diriger combat bi. jour boobu supporter lay nekk moom. waaw li nga wax. ci supporter yi la jëm. day mel ni supporter ku ñëwoon doon seetaan làmb ji bu paree lay doog a comprendre dugg na ci gaal gu mu dul yàqale. dooy caaxaan de. ci kaaraapitu sàmbalaw bi la dugg. bu raw bu sàmbalaw bi ci la dugg. mais naaru li ngay wax nii tamit yomb na de. du am arrêt. du am arrêt. booy bi avenir làmb la dafa nekk ci yoon de. ñun moom nekkuñu ci yoon nekkuñu ci dara. Hmm. waaw. mais da ngay yarul rek ñu yor la nga am noo mel ñu am lu mel ak yow déggoo ma de. yow nga ne doo nangu Liss Ndiago di diriger sa komba ak moom. nee naa la xoolal day yaru ñu yor ko bu loolu ma yor ko. léegi waxulook man waxal ak eh, Liss Ndiago arbitre bi génn na seen diggante Liss Ndiago ak Naar Sokaas. nee na man bu ma def dara. te man bëgg naa xam quoi bëgg naa xam bëgg naa xam moom mooy kan ba man duma def dara man li naa dem waaj samay combat samay mbook man mus du ma làmb du ci sax def nii. lis ngay waxal de waxoog man waxal man du def du def nii ci làmb xaw ma ko. doo làmbatu moom xam na ni ma moom ci wàllu boppam bu tëddee war na xam ni naar mii du bouger mètre. doo ko reculer benn pas. déggoo li ma la wax xanaa arrière buy am moom lay doon. <laughs> mais yow doo arrière. fu ma jëm sama sët la. arbitre génn seen diggante lu li sànni benn coup taaj daw songul naaru soxla. dama koy joxaat ni ko sànniwaatal beneen. mais loolu nar naa garaaw de. lenn lu may déranger ci moom déggoo li ma la wax de waa gàddaay yi bi nii beneen affaire la. mais booy bi seetaan nga ko day wure de buy bëre. waaye daawoon na ma wure man ma wure ba toog nga naan ma ay wure lu ci bëre. jàng nga seetaan nga ay combat seetaanuma daraam mais mënumaa bougé loo daraam seetaanuma ko aw lu ma déggoo li ma la wax du ma toog di xalaat wala di ko enjoy nii man ci yeneen laa nekk nekkuma sax ci moom yow dafa mel ni da nga bëgg wax ne ko comprendre dara ci lamb ji moom ngay bëri. app ba ba xam nga kañ lay comprendre moom bu demee ba toog këram lay doog a comprendre ah na mais naaru nag ni nga jàppee Liss Ndiago man loolu jaaxal na. man du ma ko man duma ma ko ni band ba rek man du benn joué nii bu ñu foyee déedéet non lu mu laaj rek loolu laay ñëw joxe ko mu jeex dëggoo ma de lu mu laaj damay ñëw joxe ko mu jeex man làmb loolu laa ci xam làmb da ngay ñëw def li nga war a def après mu jeex noonu la demee déggoo ma de bal dama la lu garaaw ku nu nga ñamee. ah dafa am lu ñu la dee ci combat ku ñu dee nga ñeme. dafa lu ñu la dee ci combat <laughs> booy ma la ñuy xaar. <laughs> caande léegi Liss Ndiago nga jàkkaarloo benn une minute boo xamante ni danga koy wax lan nga bëgg ngeen bëri ci combat ngir bëggal amateur moom li mu bëgg ci moom la dépendre de yaay xale nee nga yaay xale yaa ëpp doole yaa dàq bëre loolu laa bëgg nga woon ma ko la 10 ah leer na. mais loolu na de. ni moom xale la. bu la ko wane moo ëpp doole déggoo ma xanaa. booy xam nga nan la mel dafa mel ni buy dox sa kaw nii nga naan ko nii noonu la demee. man yow kii wu ma ko de. baaw kii wu ki déggoo du ma toog di xalaat nii combat boobu noonu. déedéet du ma ko xalaat parce que bokkuñu xam nga lu tax bokkuñu man du ma mbëru mbamb. bu mbamb mooy lan. ay yooxu du ay yooxu moo ma fi bàyyi ba tey booy comprendre ñu quoi man jom moo ma fi bàyyi ba tey jom bay bala man mbaru jom laa déggoo ma de bu ma nekkuloon mbëru jom bàyyi naa làmb parce que fayu ma mais jom jom ak ak takusaan nga bëri yëpp. déggoo li ma bari ci man jom bi laa quoi. ak takusaan yi nga bëri yëpp làmb fayu dé déggoo li ma la xam làmb fayuma làmb fayuma parce que lamb <laughs> cachet bi gën a cher ci say cachet ñaar la ca la làmb la ca nekk yëpp kenn mënu ko wax. cachet bi gën a cher ci say cachet ci sa carrière la. Siteu laa ko bëreel. Siteu am nga cachet boo xamante ne man na 10 millions. non non làmb moo tax ma ma ma dellu di leen dénkaat. pourtant làmb joxoon na la lamb mës na laa jox bopp nag naaru sokaas. déedéet. si làmb mës na la jox bopp. danga naan da nga naan da nga naan ma sa jom sa jom mës na laa jox bopp du làmb ma joxoon bopp sama jom moo joxoon bopp su waay làmb mbër bu ci amul euh, taxaw bu baax ñu nekk sa ginnaaw bu dëgër mënoo dem ñun sunu classe gi suñu jom moo ñu fi bàyyi. lan nga manqué woon ci boobu jamono encadrement wala. Euh, staff bu baax wala bu waaw du ko amoon bu ma amoon encadrement bu baax bu dëgër. bu dëgër bu bu baax encadrement lamb laax de ba mu encadrement wu kii da ngay am ci xel ci xel ci tout mais encadrement mu làmb moyen la xaalis la lamb xaalis a koy def. ci yooyu jamono est ce que nekkul ni Naar Sokaas moo daan waxaale ay combat moo daan jël combat moo daan xam nga def lu ko neex amul woon plan de carrière xam nga plan de carrière dafa baax ci mbër non plan de carrière dafa baax ci mbër plan de carrière fi muy njëkkee moom mooy da am ménagère nga dénk ko sa bopp xam nga li ma lay sa boo dénkee ménagère sa bopp dénk joxe nga sa bopp mbër ma joxe na boppam xam nga li ma lay sa kooku moo yor sa plan carrière mu nekkoon ci dynamique bu baax yaa ngi déggee sa mais jàppale bi maanaam jàppale bi bu demewul noonu maam tey jii man bi may bëreeg Siteu damaa bëreeg caat booy bambara daan ko ko ñu jox ma Siteu su ma moon encadrement bu dëgër bu baax mu leer na ma ni man mii mën naa dem entraînement su ma jógee entraînement ñëw lekk ba suur naan tëdd nelaw su ma am loo xamante ni dinaa ko jox suma waa kër ñu féetewoo ko amul problème kon du mu bëre sax ak Siteu déedéet wala du la mu bëreeg Siteu laay bëreeg Siteu mais parfois da ngay jóge ci combat ñëw bu demeewul noonu. mënoo xaar xaar bu yàgg parce que lii tegu sa ginnaaw moo tax ñu bëree ngi gis mbër yaakaar ni millionnaire la wala day fayee ko bëri ci làmb làmb fayagul mu ngay wax ñenn ñi pour ñu baay ko xel parfois da gis koo xamante ni dañ koy gis mu siiw trop trop ci làmb ñu yaakaar ne mi ngi lekk xaalis ay mbokkam sax mën na am ñu def ko nii ñenn ñi sax dañ koy mere parce que dañ naan ngi am fekk na. mais am nañu làmb fay nag ci champion. ah non am na. mu fay bari na. non bari na mais tey jii boo xoolee da nga naan fayul xam nga la moo tax équipe lëmm benn nit bu ci équipe lëmm ñaata ñaata personne ciy nekk. bu fekkee ñaar nit moo ciy lekk moo moom la làmb fay mais loolu bu mu fay sax ci yoon war nañoo mën a xam ne làmb fayule. lan mooy problème bi. foofu xam nga xam xam nga la mooy problème bi moom mooy li ma la wax rek tey jii boo demee Pikine boo demee équipe Fallaye bale boo xoolee Ama ngay dégg xam nga li ma la nga dem équipe Boña Boña ngay dégg nga dem écrit euh, Fass Gris doo ngay dégg nga dem xam nga li ma lay essayer écrit bu nekk. Ah, mais mais parce que ñoom ñooy tête de file yi tête de file mu. moom laa lay xam nga tête de file mënut a ñàkk xam nga li ma la mais tête du tête de rek moo war a fayeeku ci làmb non du tête de file kese moo war a fayeeku ci làmb mais nekk ci ginnaaw nag. nekk ci ginnaaw dañoo war a fayeeku ci làmb dañ ko war a yëg. si xale yi nekk ci écurie yooyu ñu ngi am ay combat ñu ngi bëri peut-être dañoo eggagul fi ñooñu egg. non àggaguñu fi non am laa wax am am am dara am la ca neex xam nga mooy lan surtout maa ci sportif teel a am. fay baax ci mbër. xam nga li ma lay se parce que làmb moom mooy li la wax rek ñu bëri parfois <laughs> Baye Balla mën nañ la <laughs> kii yaa ngi génn ci télé bi rek ñu naan ouh Baye Balla léegi am <laughs> la demee dégg nga bu baax a wax. noonu la dama waxee quoi fekk na yow maanaam. waaw ay sant rek noonu sant léegi mobilisation bi mobilisation bi naka ngay ñëwee ginnaaw raay gàddaay ñoom ñëpp ay ñëw non waa Pikine dañ koy waaj bu baax a baax a baax a baax ñi moom waxaaleew ma leen waa gàddaay sincèrement parler ñu ci taxaw bu baax a baax ku ci nekk li nga ci war a def yaa ngi koy def xam li ma naa ne daal la 10 dinañ gisaat beneen naar ban message ngay joxe ci bisu jàmbaar production le 10 juillet. waaw di ko wax bu kenn rate. 10 août le 10 ko kenn rate nañ ñëw weer boobu suma weer la weer wi weer wi ci weer wi weer wi <laughs> dafa bokk ci sumuy bis xamal ma lay sax di woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi xam nga soxlaaw ñu dara li ñu soxla moom mooy mobilisation bu bu dëgër parce que dama bëgg promoteur bi gis boppam ci làmb ji. kan ngay woo parce que combat bi métti na. non métti itam kenn mënu ko wax xam nga di woo ñi ñuy jàppale ñëpp ñëpp nag maa ngi woo ñëpp xam nga sincèrement métti na trop parce que da ngay gis ku la si jàppale jàppale waat la jàppale parce que bi mooy troisième fois muy ñuy annulé combat bi ma lees ku la jàppale mu kii ñu taxawaat mu jël si seen jël alalam defaat ko ci affaire yooyu noonu moo xam ñu nekk extérieur moo xam ñi nga xamante ni ñu ngi fii ñu ngi woo ñëpp di woo waa gàddaay bi yëpp angal ba angal ñu ngi leen di woo nompoye sëñ Saaliw ba pharmacie ba ñu ngi leen di woo di woo waa yëmbal di woo ñëpp ñu ñëw ci làmb ji di woo waa nag bu baax baax a baax a baax képp kuy ndar-ndar maa ngi lay woo ci bis boobu noonu waaw kuy waalo waalo maa ngi lay woo. loo nar a bàq fu tànke fan si man nga wax Baye Ba laa. loolu la gars yi nam de. ne dégg lay laay bàq dégg. koo koy naaru sokaas moom mooy wax mbokk yi xoolal jàmbaar production laa leen wax moom laa leen di tegal ils sont très engagés ay xale la lañu xoolal doon ay jàmbaar doon ay gaynde ñëw ngir jàppale làmb Mansour Ba le président ñu ngi lay nuyu assurance Malick Diop Serigne Dame John Papa Xeer Assane Ndiaye et tant d'autres di nuyu suñu père Ba Papa Sow le grand champion kenn du moom nit ku baax ku yaru xoolal yal na yàlla def jàmm defal nu jàmm defal ko champion yi defal ko ñëpp ba lu diis incha allah nocturne la ñu dem arène nationale yëngal gësam ak jàmbaar. képp koo xamante ni patriote nga maa ngi lay woo ci kombaar bi nga ñëw mu bëgg stade bi fees dell ak ay patriote dell. Mm. waaw ragal féete deex jëlal li yow na mm-hmm. patriote yëpp génn fekk ma làmb ja ñu foo di ñaanal suma président mm-hmm. Seydina Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla defal jàmm te may ko wér may ko kattan mm-hmm. focus 2024 amul ragal jaajëf kooku moom mooy Naar Sokaas mbokk yi ci kanam tuuti xoola damay jóge fii gàddaay incha allah yox la dem parcelle dam jëli ko dem seeti daam seen seeti garga deux xoola après ñu dem xooli dugub biir yoof dem xooli Modja bu yoof yal yàlla def jàmm ci biir réew mi maa ngi leen di bëggee mbokk yi one love